waaw li waraloon ndaje mi mooy dañu demoon ci ay élections jóge ci ay élections jële ci défaite euh, défaite boobu nag li ko waral mooy ñi nga xam ne ay responsable lañ te nekk ci dëkk bi ñoom ñoo waral défaite bi ndax ñoom ñoom lañ def ci liste bi ñu ëlbatiku di xeex liste bi. ñan gën a yaatu ñan nga jàpp ñoom lañ def ci liste di xeex liste bi. mais ñi def ci liste bi xam ngeen leen. ñu def ci liste bi kay jarul ñu di leen tuddal benn tur ñi ñu def ci liste bi kay ku ne xam na ko ñoom APR ci boppam ñu ëlbatiku xeexaat président Macky Sall mu jël alalam di leen ko jox ñu ëlbatiku di ko xeex. naka lañ ko xeexee. niñ ko xeexee mooy dañoo xeex liste bi pour mu daamu voté luñu liste bi. c'est-à-dire ci ban anam la ko wax. mën nañ vote sanction wala lan la vote sanction la. parce que alal ji nga xam ne président de la république joxe na ko moom lañ ëlbatiku joxewaat ko ci benn wàllu ñoom ñu gañe parce que oto yeeg yëpp wàllu moom lañ doon jëlee di jël nit ñi di ñuy ñuy ji léegi ñu ko wax ñu que dama dama cee teg sama bët ndax damaa nekkoon ci terrain bi maak sëñ Modou Mbacke Bara Dolly ñoo ànd nekk ci terrain bi ku ci nekk ba nga demee sa biro de vote dañ laa yuuxoo mennum sëñ Modou rek la ñu yuuxawut ci bureau de mais ñi ci def ñëpp ku ci nekk ku ci nekk ci liste beeg ku ci nekkul ñoom ñëpp dañ leen a yuuxoo seen bureau de vote. yow yaa ngi dañu moom am ñu jàpp ne daf ko xeex ndaxte moom le fait que investir ñu ko daf euh, ñun ñëpp dañ doon xeex liste bi mais ñun bi ñu président de la république woowee recevoir ñu lépp lu ñu jàppoon dañ ko bàyyi wàcc ci terrain bi xeex ku président am ndam loolu ku nekk gis na ko. dëkk ki ñëwee socialiste yi kenn dëkk fa nga bako ñëw mel ne ko ànd ak waa waaw département bi laay xeexal man li nga wax nag sax danga ma laaj laaj bu am solo mooy nag déclenché nga ma parce que dama bëgg a wax ci département bi euh, damay alerter président de la république na moytu ñi nga xam ne ñooy guddali mbubb di rëy ay kaala ci département bi xaalis bu mu fi joxe ñu lekk ko te duñ ko voteel ànduñu ak moom président de la république dangaa am ak njaboot muy part mu nekk ci département bi te kenn considéré leen kenn joxu leen seen cër bokk na ci li ñuy perteloo bokk na ci leneen li ñuy perteloo mooy Mbàkke Bawal Mbàkke Bawal kenn mënul ne président de la république lii la leen defal wax naa ko ko ci kanamam ne naa ko président de la république ndaw ñi dañoo soxla fu ñuy tàggatoo estatu Mbàkke baa ngi ne kenn defaru ko marché Mbacke 1960 la woon ba léegi dispensaire u Mbacke bee ay seng la ba tey mairie Mbacke ku nekk gis na na mu mel buntu mairie ba rek oto jaaratu fa def ndax assainissement boo xam ne ñun waa Mbacke amuñu ko Mbacke amuñu tali bu baax kon foofu booy booy wax di wax di di di jaay président de la république ci dëkk bi rek nga koy jaay maanaam ci réew mi li nga xam ne def na ko ci réew mi rek ci loolu nga koy jaay mais doo ko jaay ci lu mu defal waa Mbacke. Mbacke bu delloo six mois loolu dama ci sawar tontu dama ko waxoon ci kanam président de la république bi mu taxawee ci kanam président de la république fëgg dënnam dama ko ne yow yaa ngi fëgg sa dënn ci kanamu président de la république mais gagné parce que danga defoon ay transfert transfert yooyu bi ñu ko trouvé résultat baa ngi ni ku nekk gis na Mbàkke ni mu demee. Mbàkke tamit du dama la jëlaleel ay sanctionné Gallo Ba mais président de la république Mbàkke suñ sanctionné président war nañ ko sanctionné parce que defalu leen lu tax ñu koy voté suñ waxantee dëgg rek président amul kenn koo xam ne yaa dëkk Mbàkke dem di ko wax jafe-jafey Mbàkke pour mu fajal leen ko Mbàkke ci ay jafe-jafe la ñuy dund yu méttee métti boo ko xoolee ci daaru nayim bii rek seen maire bi macha allah te pourtant maire Mbàkke ak maire daaru nayim ñoo bokkoon même projet daaru nayim inauguré nañ seen mairie mais ñun mool sax gisaguñ ko. voilà ak euh, ah, na ëllëg mën na bañ a lëndëm ndax euh, président dafa tas gouvernement am ñu am yaakaar ne nag dina ci gestu doomi Mbàkke dina ci gestu doomu département bi te ñun foofu lañ koy xaar. te jàpp naa ne su ci gëstoo doomu département bi dina am beneen liggéey boo xam ne am na beneen taxawaay boo xam ne nit ñi dinañ ko taxawe ah li ma ciy xaar mooy ñu ñu ñu taxawal askan wi ka mu bokk ci opposition ka mu bokk ci pouvoir nañ taxawal askan wi en tout cas askan wi sonn nañ coono boobu askan wi sonn nag kuy fal sa député pour mu taxawala la mais faluñu pour député yoo xam ne dañuy dem ci assemblée rek projet de loi bu ñu teg rek ñu voté ko bañ a nekk foofu nag di liggéeyal askan bi voilà dernière da nga wax ne da ngeen bëgg ay poste de responsable ci mel ni ay ay ministre te dañu xalaat ne njiitu réew Macky saa su rek buy tàbb bërëb yi nga xamante ne foofu la amee ndax foofu lay euh, tànnee ak defet bii jàpp nga ne ndax dana yomb ñu tànn ab ministre yéen fii ci département bu Mbacké waaw loolu ñun bi mu ñu recevoir wax na ko nee na mënuma di jox ñoo xam ne duñu gañe bàyyi ñiy gañe waaye tamit moom daf ci am responsabilité responsabilité bi ci président am mooy defar jafe-jafe askan wi moo ëpp solo que di xool kan lay tànn ak ku dul tànn. waaw may waxaat nag euh, di bàyyi loo xel président de la république lenn mooy ndaw ñi amuñu am xëy. te bokk na li tax sénégalais yu bëri sanctionné ko du san du rek lañ ko sanctionné bëri na département yoo xam ne dañ ko sanctionné parce que askan wi ñoo sonn ndaw ñi nga xam ne amuñu am xëy jigéen ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi ñooy jàppale jigéen ñi jàppale seen boroom kër yi tamit gisuñu ci seen bopp loolu bokk na ci li nga xam ne euh, tax nañu sanctionné président de la république man li mu koy wax mooy euh, président ci jëm boppam na xoolaat direction bi na xoolaat ministère am yi ministère boo ci dugg ñu fa nekk ëppal nañ 65 ans di wéy ba pare ñu dafa leen ay contrat ñu nekk ci dëkk bi di continuer di liggéey ndaw ñi am seen ay diplôme jàng yor seeni i diplôme mënuñoo xëy lool président war na ci defaat seetlu li nga xam ne moo xew démb tamit ci dakaar dama ciy wax président de la république man fi ma ko doon xaar man en tant que sama lider en tant que sama coordinateur de parti tey bu yeewoo dafa waroon ànd ak marine nationale wàcc ci dëkk bi saafoonteeg askan askan wi waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom jafe-jafe bi bokk ak ñoom naqar bi te lem plan Orsec teg ko nële plan Orsec lekkukaayu xaalis képp lañ ko def loolu bokk na ci li may wax président de la république waaw ñuy sant nag di gërëm euh, di ko wax ne ko nag nuñ dañoo am ku ñu àndal muy Serigne Modou Mbacke Bara Doli moom lañ àndal dañu bëgg nag moom waxuñu mu fal ko ministre waxuñu mu fal ko directeur mais dañoo bëgg mu def ko médiateur de la république la ñu soxla mu def ko sëñ Modou Mbacké Bara Dolly ndax xam naa ne wàll médiation moom am na lum ci man te li mu fi am a akas néew fii ci département Mbacké moom moo ko dox ndax dadoon xëy di recevoir ay nit ba trois heures du matin kon loolu ku nekk seetlu na ku nekk mën na ko seede fii ci département